ak El Hadj Ousseynou Ndiaye dal na jàmm ci xibaar yéenekaay nga xam ne rek moom la xëyandoo ñu daal di koy door critique yéenekaay du ñu tey jii nag ci dugal ci ay koppar koppar seer na lool lu toll ci ñaari milliards yoo xam ne dugal nañ ko ca jamono jojee la turbine yéenekaay dinu xamal ne am na lu toll ci ñaar fukki jàngalekat yoo xam ne rek jot nañu ñàkk seen bakkan ci jàngoroy covid 19 bi ci xamal ne jàngalekat yi nag ci ak grève la jëm waa kisam si nag jamono ji ak grève goo xam ne rek fas yéene nañu ko amal bokk na ci nag li ko sabab moo di seeni indemnité yi nga xam ne rek ñu koy laajte ci wàllu ko bag jamono maanaam daal coow li nga xam ne rek moom moo leen jaxasoon muy plainte contre x baak yu ni mel ba lañ ci wax leer na nañ turu Ousmane Sonko kay lañ ca tudd mbir yi nag dafa mel ne ak soppeeku moo ca am ca waxtu yu mujj yi vox populi nee ñu koy jamono ji ñi am ak coppeekook jaaxle mooy ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko ne rek noonu lañ leen di tegee loxo ak di jàpp di yóbbu yéene kaay gi dañu xamal ne ñoom koy jamono ji dañuy ñaawlu xam ne rek noonu leen single direct news yéene dañu xamal ne Moustapha Diakhaté kay kàddu yi nga xam ne rek yëkkati na ko dafay xam ne ne kay Ousmane dafa juum ci ay fànn yu bëri ndax Ousmane moomee moom moom mooy erreur yoo xam ne rek def na ko maanaam mbir ma da ko jël def ko wàllu ko politique ak yu ni mel exclusif yéenekaay di ñu xamal ne am na daal ñetti njuumte yoo xam ne jàpp nañu ne def nañ ko ci jamono joojee le Témoin yéenekaay di ñu xamal ne coowal Casamance ak yëngu-yëngu yi nga xam ne rek jot na fa am jamono ji nag armée ba ma ngay tasaare foofee waaye nag ay documents yu bëri yoo xam ne teg nañ ci loxo ak El Hadj Ousseynou Ndiaye